d'Afrique bi indi ko ci réew mi euh, di waajal dem coupe du monde fi ñu toll ni yàlla def ñoo baaxee euh, lépp rek luy ndox ci àdduna bi euh, fi ñu toll ni fii lañ koy tënkee taxañ ko fi waxtaane ko fi soog koo génne maanaam tabarkàlla flom bi fii lay xewee garaawut de ñun géwél lu ne baal nañu ko ci plateau téléphone buy sonné géer ñi la yow buñ ko coupé géer ñi la moom yi lépp mën naa ne lépp mën naa ne gër ñi la tabarkàlla am na solo Youssou ah, daal di ci def clip ñu naan déet mu defaat ci clip daal ci associé ak yeneen i ak yeneen culture yoo xam ne mu ngi eh, ñaajo yàlla defal ñu jàmm yàlla yàlla comme ni nga ko waxee ndox mu nekk nag lenn loo xamante ne dafa am solo ñu toll nag ci neuvième édition bi de yàlla dogal ni ñun ñun ñoo moomee nga gis sànq président de la république wax na ci yu rëy yoo xamante ne law la cat waaye comme ni ñu waxee na ñu ciy wax maam ran mm. waaw euh, Mado ndox moom bala nga xam njëriñam nga mar mm-hmm. waaw boo maree da defal ndànk rek boo maree mm-hmm. Mm-hmm. di nga gën a xam ah, ndaa ah, njëriñ xam nga xiif sax ah xiif bay lox doo ko dégg mar bay lox ngay a dégg kon ndox am na njëriñ ah. kon donc aha kay aba fa laa mën a yem ndox ñu def ko ci satala waaw ba loolu lépp dëgg la waaye dama nga nga nga nga nekk ci ay tolof tolof mamran waaw ba yag nga sëgg xool satala bi waaw gis mu def ndox mam yaat ma ngi kii mamran piix googu di am piix mi mi mi ngi yegg sa ko am piix moo xanaa <laughs> piix la moo xam ne abaa bi abaan daal njaxaw yi daan am ci biir néegi i ci def ceeb nga def ci ceeb muy sedd guy sedd guy nga fubbali ba ñëw ay ndox daw dogg ca biir néeg ba ca biir tan xapatam ndox eh. naan ka eh. ah booba di nga xam ne ndox ama njariñ eh, ah mm. ndox ko ko xam na ah, ndox waaw loolu démb la ah, loolu démb la yàgg ndox bu la yee fajar fekk da ngaa lekk maa fekk yom set yooyu ah, fajar foofa laa jëm ñeme naa ko a balo may demal demal demal demal tubaarkàlla macha allah nga ne yoot fekk si yow bi fees dell ak ndox. nga xam ne ndoxay waaja. garaawul garaawul ah, li li li des. nga bëgg a tëdd sa borom kër. bëgg a sàmb ba set bëgg a xeeñ lu neex. tubaarkàlla fu mu la yónnu. ndox am na njëriñ foofa tubaarkàlla di di muy yëg. nga xam ne ndox kenn moom ci réew. ndox am na njëriñ ndox am na njëriñ. ñàkk courant sax a gën ku ndox. dëgg la de. ah ndox ñun jigéen ñi. ñun rawatina ñun nag. ah dara <laughs> kër gi bu ndox amul kër gi du set. kër gi du baax parce que ndox mooy lépp ci euh, ndox daal c'est la vie. comme yal nañu ko yàlla defal ñuy am ndox bu baax kër gi doy ndox ndax ñàkk li moom mi wax rek. mu lëndëm moo gën ñàkk ndox. waaw moom mooy lépp ci dund ba ci nit. waaw ba ci nit sax 100 pour cent bu dekkee mooy nit. ndox la ah, ndox la. boo juddoo ndox mm. boo génnee àdduna ndox ndox moom lañ lay mujjee sange bu nekk ci lu baax mais ñuy santaat aussi bu baax a baax parce que li ñu nekk doon wax que neuvième édition bi donc ki nga xamante ne moom moo di ambassadeur ren bi Youssou maa jigéen nañ ko tabb donc li ñuy wax rek mooy ni mu toll ci réew mi donc mu nekk ni mu toll ci Afrique et dans le monde mm. macha allah ñu jël ko di ko defee tamit pour une première au Sénégal fi am mm. ah donc je sant la comme li ñuy wax wax rek nañu gën a góorgóorlu et puis gën a sagu ci ki nga xamante ne moom moo di Youssou Madjiguène jox ko cër bi ko sunu borom jox ndax macha allah lii daal euh, sant rek la et merci beaucoup am Mody Ba aussi moom mi nga xam ni moom la Youssou ah, àndal ci effectivement ci vidéo bi mu bu riche boo xam ni dafay jaay suñu culture waaye day jaay réew mi mm-hmm. ah, jaay li nga xam ni moom mooy suñu ndox mi tarkal ñu dimbali ñu rek mu set mu sell te yomb am fépp ndox mooy lépp sell yomb am fépp nag ndox dafa doon loo xamee. Mhm. yaakaar naa tey buñ ko joxee yuusu. jox nañ ko koo xamante ne nii fan yaakaar ne fa la war a àgg. Mhm. Euh, kattanam ak ak man-manam mhm. dañ koy ñaanal yàlla suñu borom dooleel ko. boo gunge ko ci loolu. ndax euh, jox nañ ko ko am jom. dox nañ ko ku bëgg liggéey. dox nañ ko koo xamante ne Youssou Ndour booy di déglu nga xamante ne moom mooy ay wayam da lay conseillé ci sa dund yow. waaw parce que euh, ci ci wayam yëpp dafa doon loo xamante ne njariñ la. parce que boo ci sa saxoo rek li mu wax ne bis bu la xasaraw boobu bis dem na yeneen bis yi ñëw xamoo lu mu ànd dëgg la de kon takku liggéey dafa jot te ci am na solo ñu takku liggéey ñun ñëpp a tax ñu yónni mi hmm. ne ko nga dem xooloon ñu place boobu nga xam ni place bu yànj la euh, place la boo xam mi kuy dund soxla nga ko réew mi kuy dund di nga di nga soxla ndox hmm. waaye soxla nga euh, di soloog di summeeku di hmm. sañse te mënoo ko def tànk sanguwoo ba noppi kon ndox buñ ci paree rek dañuy jëm ci sañse macha allah ba loolu nag moo di dégg tubaar fakal la looloo tax nag ñu doxantu fi nga xamante ne moom moo di boutique bi gën ci réew mi macha allah ñu gën ko xamee nag ci turu kër Serigne Fallou tissu euh, mm-hmm. euh, chez Fatou mu nekk soxna boo xamante ne dafa am jom sañse rek ko ñor ak euh, teral li nga xamante ne moom moo di waa réew mi ba tax na li ñuy def rek dañu àndandoo xool élément bi ñu wan leen baax baax yi am ci boobu boutique asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi tey nag ñu ngi ñëw fi nga xamante ne moom moo di HLM HLM 6 fi nga xamante ne nag moom moo di cité douane booru nag ki nga xamante ne moom moo di suñu papa kër Doudou Ndiaye Rose sorewu ko dara ñu ñëw nag ci benn boutique bu mag boo xamante ne Sénégal njaay ba mu daj ñëpp kuy jëndatu su fii ngay ñëwee foofooy fan kër Serigne Fallou tissu ku ko moom nag ki nga xamante ne moom moo di Fatou Sylla yaaram jeeg ju baax ji xam lu baax li yéene ko nit ñu baax ñi ba tax na tey man Mado fa laa leen indi li ñuy def rek dañu tàmp nank dugg ci biir ma woon leen naka la fu mburu bi di xoyom-xoyomee ci biir kon nag comme ni ma leen ko waxee woon bokku téléspectateurs yi nag ñi ngi ci boutique boo xamante ne wax naa leen ci réew mi kenn dootu ko présenté ti tungu ne du teew ñuy nataal li ñuy def dañu koy dékk suñu micro taataan ay nag mu xamale ñu kër sëñ Fallou Tissu naka la demee salaamaaleykum soxna si noo tudd ak noo sant. maaleykum salaam Mado maa ngi tudd Fatou Sylla Joxaane kër Serigne Fallou Tissu ma nga ruq ma nga njëkkee ci ruq maabo léegi nag ñu ubbiwaat fii beneen boutique boo xamante ne client yi dañ ko doon demandé ne client boo xamante ne dañoo bëgg foo xamante ne dañu fay gaari seen oto. Hmm. boutique boo xamante ne soo ñëwee da ngay jël sa lees ràcc jënd lu la saf loolu moo tax ñu ubbi ko fii ci HLM 6. booru kër du Ndiaye Rose. macha allah bu ñu ñëwaatee nag ci xeetu bagage yi ngay ñëw parce que yow ñëw ñëw bi moom seddal naa leen ni yomb na parce que am na car parking et loolu moo gën a jafe ci boutique mais ginnaaw loolu ce que mën nañu ñëw nag ci xeetu tissu yi nga am ndax man tey bi ma fi duggee dama jommi waaye nag yow yaa ñu ko nar a limal. waaw waaw tissu tissu yi moom macha allah macha allah bari na. bari na am nañu borde yu rafet yu raar yu jongama te nag dara seeru fi bitig bi kër Serigne Fallou kër Serigne Fallou moom xéew rek lay def. yëpp lay jaay njëg gu yomb te tamit borode yi qualité bi dafa baax ñun dañuy jaay qualité boo solee fóot mu mel na tey nga koy soog a jënd du def dara amul fóot dellu ay année ay année mën nga sol borode bi te du def dara ñun ñoo koy importer suñu bopp indil ko suñu bopp. moo tax lu baax la ñuy jaay. waaye mel na ni gisuma fi xeetu broderie est-ce que mën nga ma limal xeetu tissu yi nga fi am yi parce que nag gis naa fi ay tissu xew ay dentelle maanaam li ma fi gis dafa bari mais est-ce que ñu ko limal. ah macha allah macha allah Mado yu baax a ngi fi yu rafet a ngi fi bi nga xamante ne moom la ñi nga xamante ne moom la nit ñi xëccoo fi mu nekk mooy lii. xoolal lii Mado lii laa yéen i tas nañ ci jamono. te ñu ci bari maa leen ko jaay. brodé la boo xamante ne lees bi rek. kenn xamul nu mu toll lees bu gudd la duuba lees la te dafa jongama 5 mètres mën nga cee am mbubb ak séer ak musóor doo ki defaat dara ba pare dafa gar ni boppam dañ ko jur ba mu fees defoo ci dara man mii moom laa ñëw nii ah lii nag mooy mbubb sañse nag madu mbubb sañse ngi nii macha allah boo xamante ne yu raar yu rafet la mais macha allah dañ ma koy laaj fu ma toll toolal bii nga xamante ne ku ñuy takk tey nga tas dëkk bi lii rafet na sama bi macha allah dafa rafet yu bees tàq la xoolal noir bi noir perle bi yow tas na dëkk bi jàpp ko xees jàpp ko ñun. waa xoolal brodé yi nga xamante ne nag ñun ñooy ojaam yi nga xamante ne moom la ñuy commandé mu defaral ñu. mu ngi nii moo gën brodé ci Bangkok lii direct Bangkok la dafa nooy népp nekk qualité. bal bi dafay def vingt couleurs ku bëgg en gros am na ku bëgg demi gros am na ku bëgg détail am na. koor gaa ngi ñëw nit ñi war a joxe seen njëkk yi suukaru koor. xoolal lii lii moom tas na dëkk bi ñiy taaj dogu lii moom lii moom dafa jong la bu suma xam ne nag maman madame Tall ndekete fii ngay duggee maa tey jàpp naa la fii sama secret nag Mado fii nag mooy sama secret fii mooy sama jëndukaay fii moo ma gën a jege ba pare brodé yi wax dëgg yàlla dafa mel ni qualité bii gën a baax sax ne ja ca biir marché ba fii laa taamu daal actuellement nii ndax ba mu fi commencé jënd ba léegi amu ci benn regret kër Serigne Fallou ci tissu

ku ma ci woote ayca mu ngi noonu ña nga woon ci euh, fi nga xam ni mooy kër Serigne Fallou Tissu foog naa ni nga seeti woon euh, sunu yaay ji nga xam ni euh, moom ak li nga xamante ne moom moo di gars yi foofu jënd nag ay tissu yu baax yoo xamante ne moom la sénégalais yi bëgg mu indi ko lépp li ngeen fa gis rek am na ci boutique boobulee lépp nag yeneen yi nga xamante ne moom moo di pir xaak yooyu ak leneen yi nga xamante ne moom moo di manteau yi nga xamante ne jigéen ñi dañ koy sol pour waajal koor gi donc mu ne macha allah mii noonu nañ ko nag fi nga xamante ne moom moo di rukuma bo waaye léegi nag dafa sos place bu bees tàkk nekkee ci HLM booy demee rek ci cité douane bi macha allah ba nga laajte booru kër euh, sunu papa Doudou Ndiaye Rose rek presque ñoom ñaar ñoo daje donc boutique bi villa bi mi ngi nekk villa numéro 27 82 HLM la loolu HLM la hmm, nekkee donc képp ku woote nag ci 77 653 53 17 wala nga woote ci 77 672 68 26 am nañ Instagram ba ci Snap bu fekkee dem nga ba ajouté leen boo duggee ci biir loo fa gis nga bëgg ko rek ci similaat salle ñu livré la ko te boutique bi li ci gën a neex mooy am na parking da ñëw gaare ci nu la neexee en tout cas boutique la boo xamante ne ne nii moo yëngal réew kuy grande dame fa lay jëndee tissu aba kuy grande dame fa ngay dem daal di fay jëndee tissu mais pour xamal leen yéen ñiy dem ci place yi mhm. euh, ngeen wax ko ñi ne ci place ay neexal la rek. Mhm. dañoo bëgg ñëpp seen yëf di feeñ. Mhm. ndax dañ ñu TFM seetu Sénégal. ci showroom bi mhm. lépp ñëpp. lu ne ku ne ngi ci donc na lépp ñëpp di feeñ. mais ku ci demati ci boutique. booy ñëwati ci plateau bi fii. nee leen ñi ne ci boutique yi da ngeen fee bàyyi kilifa gu mag. dëgg mais ma ñëw maam ran ay kilifa kilifa gi ngeen fi bàyyi. dafa am ñoo xam ni. ñoom dañoo wekk ci kilifteefam. wax dëgg mais dañoo pël. bu ñu defoon ndànk dinaa ñëw ci wax dëgg ndax ma sol gërëm sol moo mi sol. bu ko defee yéen sol. lenn musu fee ñëw ma lekk bàyyi leen. ah léeg-léeg nga lekk bàyyi nu de. Ah. ah léeg-léeg nga ah, kii. ah mosoo ko de. Ah. lu ñëw de man de maa ngi bële. ah déedéet. ah moom ah, ah, déedéet déedéet maa yow ñooy toogandoo dakaana doon ba lu ñëw dañ ñu jox maak yow na dem leen otoom lay dugg ubbi jox ñëpp yu bees tàq eh, ah déet ah waaw eh, eh, nga ne ay ndax dakaana doon pa day neexe ñi ndax weekend sat ah. toogu ma fu amul mos fu amul mos toogu ma fa ñii sax yenn saa ñu indi mos dama am aba jëlal yóbbu kër ga alma micro bi waa baara gi Ah, baara muso ah, gi nii góor bu demee ba xam cof ko gi ci baara muso gi ñi ne toog fi wax baara muso nga xam ni yéen jigéen ñi yéenay togg waaye ñun góor ñi ñooy ñam guur yi xam nañ li neex baara muso ah, ñam na ko xam naa lu neex xam naa lu saf lu eh bu ma la waxee lu neex jàppal xam naa lu neex nit mënatuma nax ci lu saf lu neex nit mënatuma see nax baara muso bu ma nee neex na neex na xam naa lu neex bi mooy bi bii mooy poulet bu yaw am bi c'est naturel aussi. macha allah bii dañ mboq mboq lañ ko defaree. nga ne ma. ay épices la ñu mélangé. ñu mélangé ko. barke yonent saisonné ko par mboq bi. mboq bi mooy moo tax mu jël couleur jaune bi. boo ko ah, ubbee jaune bi. naturel amul benn coloration. amul benn benn produit chimique produit chimique. dëgg la lépp naturel la. Hmm. spécialité am nag moo wax la ko mooy ginaar. ak omelette. ah oh, waaw nga ne ma booy omelette moom bii boo ko amee moom vraiment. maanaam boo ci jëlee taf ah. siiw ko ci li muy wax. mën na ko ci boo jëlee waaw boo xoolee lex yi rek xam ne li muy wax. maîtrise na ko ginaar ah, na omelette. kon nag gars yi yéen a ko déggandoo. bii moom c'est purement naturel aussi. laaw <laughs> la cat bii mooy dagani. dagani bii dagani. dagani c'est le nom il est malien. turu malien la quoi bon parce que Bara Mousso ñu bëri dañuy jàpp ne Mali Mali mais c'est une coproduction locale. Mhm. Sénégal mhm. mais ki ko moom. Mhm. malien la ah. malien la mais bon daf ko indi Dakar ay doomu réew ñoo ci liggéey tu vois moo nekk noonu dagane bi. dagane bi format bi moo nekk nii. bare na format bu la neexee nga am ci sa pot booy togg nga soxla épice boo xamante day dooreel ceeb bi. waaw mun nga utiliser dagane bi. kon nag ku ci toggati sa ceeb bu yàpp nga xamante ne ci mu doore na jël ci rusi ba wis ko ko ci ndax gëm naa ne dana ko dooleel yéen ñaar ñi mën naa ne séq di ngeen séqee nii ma am lu may ñaan rek ngeen may ma ko bu ngeen waxatee ba daaneel rek ngeen may rek ma wax le mot kii bi mot waaw mooy itaaye ka kooyee mooy moo ko yor itaaye ka kooyee mooy moo ko yor itaaye ka kooyee mooy moo ko yor nan yeggal waaw bon bii moom bëgg naa laal bi tuuti quoi. Mm. waaw bii parce que Sénégal fi xam nga suñu plat préféré ceebu jën la. dëgg la donc ceebu jën pratiquement ñëpp a koy. utiliser togg ñëpp ko utiliser. Mhm. bii nag spécialité am nag mooy ceeb gisoo jën bi ñu ci def moo ko yokk gu gisoo légumes yi. Mm. donc bu dee da nga utiliser bii ci sa ceeb bu ñan moom vraiment duñu la mere. dëgg la ah. kenn du la mere kër ga bii rek mhm. bii rek laa la wax. <laughs> bii jéeg ji nga xamante seen loxo daawul saf. lii boo leen ko utiliser dina sàppale li nga xamante ne moom moo di seen loxo bu la neexee nga def ko ci roof bi. wala booy baaral nga jël ko wis ko ci nànk bàyyi ko muy temte mi ndax guub bi mën a génn. et puis jën la jën bu mélange avec des légumes. dëgg la carotte mi ngi ci légumes yi ngay gis nii. Mhm. carotte a ngi ci seen yëf amul produit naturel la. Mm. Abba ah, daana la lecture bi. Itataye. Euh, itaye Kakoye. Itaye Kakoye. Itaye Kakoye. bilaay looloy waa dërëm ndax mën ngaa togg. man ah ah. toggaloog ah. nga maa ngi ñëw ci ma maa ngi ñëw ci yow. Ah, dërëm yow toggaloog nga. bu baax. ko dombale nga. bu baax mën ngaa togg. bu baax yaasa. maa la wax maafe dama daa laa xëy la laa dëkk mbëb eh. ma dóor ma dóor la ba ci eh, yow mënoo togg ab ñaankat nga mënoo togg <laughs> ne ah jambalaatal maay ma jambal ma jambal jaaj maa fi jambon daaw eh, jamb fi def ma jambal aba nëgë daaw maa maam daan toggoon naa fi yow kon yow comme yaay ma jambal jaañ ah. yaa fi jamboon daaw jamb fi ren yaay ma jambal jaañ yow euh, bu ñuy defar ay kii ay ñambaan ak yooyu dinañ la ci woyow waaw comme yaay jamb comme yaay ma jambal jaañ bu ñuy defar ay daqaar ay ñambaan ay yooyu ci lay woo ceebu jën bu ne muut bii xanaa bu xonq la wala ban. bi. boobu mooy géej ah, donc c'est du bi moo nekk nii. tu mhm. dañoo woowal géej bi dëbb mhm. ko mhm. yax yëpp dindi ko mhm. def ko ci ay poudre booy togg sa jëbu sa ceebu géej dañ ci waa lekk nga ko mu yombal ko. lépp ah ah, ah. ah lii de pañe marché rek kaa si des. pañe marché a poule kese moo ci des. a ah, lii commencé gis. <laughs> waaw ma ne ko ah ma ne ko lakkañ ngeen di de kenn dëbb kenn dëbb maam daal lépp jeex na. donc géej bi moo mooy poulet bi. bii nga indi tey bii mooy petit format bii mooy petit format bi. bii bi grand format bi petit bi 400 mm. grammes la bi 200 grammes. Mm, mm, moo nekk noonu. léegi yow tey léegi yow tey li la mayoon ci ay heure pour nga wax ko. moom nga wax ni ba pare. léegi yow comme da ngay wax tey wax suba wax ginnaaw suba. day jug. <laughs> mais mais nag yow booy jug mais nag yow booy jug maa ngi lay may ma tuuti bëgg naa euh, bi tamit bon il ñu xam ne vraiment c'est local. c'est local te mm. micro bi baax nit ñi di fii la dugg na fi. non non fii la nekk usine bi la nekk. Mm. production ah, locale la te baaraamu su doom doom ñoo ci liggéey. c'est des mm-hmm. Sénégalais qui travaillent. Mm-hmm. ay jeunes Sénégalais plein ñoo ci daan seen mm-hmm. doole donc nañ jàppalante suñu affaire de étranger étranger la nañ ko bàyyi. am na solo léegi nag affaire étranger yi nañ ko bàyyi. naa jar moom baara musu ay yëfi réew mi la mhm. ay doomi réew mi ko moom ju jóge ca Mali fekk si ay doomi réew mi mhm. ànd ak ñoom di liggéey waa Junior Cissé loo si rek bàyyam xam naa ko moo bàyyam ay jàmbaar moo doon jom yaa ngi ci direct bi tubaab doon fulaak fayda doon ngor murid pire Moustapha Cissé Lo gën doom ju mu am doomi murid nga barke doom ju mu am doomi julit nga dafa yar yal na yàlla defal ko jàmm ah, léegi léegi ñi may woo nii dinañ ma jox dépense ah, bu ma téye dépense gi dama lay jox yow jaw faraang ma jox la yow dërëm waa ngi ñëw de ah, xam ga yow yaa ngi bàq ah, ah, koo xam ni dañ koy jox jox la yow kii joxe ma nga war a bàq fukki junni la ma jox barki démb ah kon bàkkal bañ a bàq cinquante mille léegi le coup day to yàlla na xelu mag ñi génn ci man léegi dama koy jox moom dépense am jox la sa dépense dërëm jox la yow sa dépense min nga bool xam nga bool nga indi bool bi yàq ci lu la neex <laughs> léegi nag lundi xare ma ñu moom rek toggoo ñi togg laa jox ñi togg laa jox toggoo bàyyi ma jox ñi togg léegi léegi maa ñëw sa ni pour nga waxee fii de léegi ñi toggu laa jox bu lëndee ku ci nekk xool plat bi la neex nga togg ko sa kër booy ñëw yakkal ñu. ñu ñam ko fii ñu ñam ko fii ak baaramusu gi. ak baaramusu am na ak man ànd na ak yow. doon fee ànd na ma ak yow waaye nag nan def suppa kànja Ah. non non non bàyyi leen ak bàyyi leen ak seen xel. man man baxalu Saalum laay def non non non waaw waaw mbaa daa yor jikko baxalu Saalum dañuy def noonu dinaa leen jox dépense ba pare li ci gën a neex enveloppe cent mille francs teg ko fi xaar ba pare abaa nag dañuy diversifier ah. plat yi boo ko defee ba togg de nag plat wu sunu réew waaye wane ni tamit mën naa ànd ak ay toggi tubaab leer laa wax eh, eh, mën naa la tegal plat européen poulet à la mexicaine bu amul fenn laa lay taajal abaa bu kenn yor bu kenn jël tracteur loxo rek surtout jël ay superviseur ñuy ah, superviser ji da ngeen baara eh, voilà supervisé sama concept bi nag yéen a koy yàq fi ñu toll ah, nii ah, fi ñu toll nii mi ngi yàqu li maam daan di bañ parce que lii gaaral la dinaa ko indiwaat ci dinaa ko indiwaat ci ay togg ah togg yi moom maam daan bëgg naa ci snap moom bëgg naa ci midi nga snap sa bopp snap sa cin pee moo ñëw indil ma waa nga yegg. si la bëri da ngeen man ko di gaaral dafa am dafa am ku retraité kenn waxaat maam daan ay wax mais aba waa déedéet xam nga aba ah, xam nga fii réew mi toll nii ah euh, Mado non mais allo. directeur ah, xam nga xam nga fii réew mi toll Aba. non mais Khadija. koo ci gis mu ngi ak numéro yoo xamante ne nii. lu nu soxla dañuy woote ñu andil leen. ah mais utax nga may xool. déedéet ah, ci plateau bi. <laughs> mais pourquoi mais utax xooloo ñu ngi. Ah, jàkkaarloo wala man dama nuru toggkatu te. waaw déedéet eh, déedéet wala man mii. ah ah wéy léegi nag fi mu toll yi ak yow yow. ak yow ah. dañuy dem seetaani publicité buñ fa jógee dem ca Kolle laay ca marché ba ndax moom ay yëfi togg la indi moom leer nañu moom ab toggkat la ndax heure bu xëyee dem marché ñu dem xooli publicité dem xoolaale Kolle laay te ñëwaat ci plateau bi kañ nga jub yow mooy ndax ay produits baara musu laay toggee dañoo naturel set te baax ci wérgu yaram. <laughs> sama jëkkër man maay préféré ay produits baara musu laay dañoo naturel set te baax ci gu yaram. man ceeb bu jën mooy suma plat préféré. bon man la Bintu Thiam sa baara luy baara musu. mooy femme préférée. en femme préférée xaar man Bara Mousso mooy suma épouse préférée baara Mousso 100% naturel dafa am ay épices yu baax poivre nettetu laaj piment loo xam ne da di saf safal kon baara <laughs> kenn du moom. mbokki Sénégal mbokki Kaolack nangaan ak li ko wër lu label Thierry Ngone production moo di présenter Pape Diouf au cœur de ville de Kaolack nangaan le 26 mars ça va être chaud ça va être grave à partir de 21h soirée bu amul fenn la leen Pape Diouf di defal yéen

Raf Prod présente le comeback de Assane Ndiaye, le lead vocal du Ngewel Gi après la sortie de son album Hommage à Thione Balago Seck After Covid ce samedi mars à partir de 20h au Terrou-Bi. Kookan la ñu ne Assane Ndiaye et le Ngewel Gi. première partie ba ñu ne Kéba Seck ay yow lii nar na neex di première partie Kéba Seck ah ban pays mooy pays invité ñu ne la Gambie. Gambian people bugguma kenn des gannaaw I want everyone to come on board Assane Ndiaye and the Gewel gi band of course ak Kéba waaye nag ñi nga xamante ne ñooy waa Raf ñu indil this night is going to be a spectacular night a night full of surprises of course and a beautiful night boo xamante ne is the Senegambian night Assane Ndiaye and the xam naa ne Gambians yi buñ fëlësee sañse macha allah red carpet is going to be there for you guys maa ngi oo everybody képp koo xamante ne yaa ngi Gambia surtout sama waa biir Kaama xam nga Assane daf ñoo beral loxo bëgg naa ñëpp ñu daal di ñëw. attention ce 26 mars du yomb réservé leen ci 78 592 42 54 ci 78 592 42 54. you can contact us on +221 78. 592 42 54. non du ma leen may dara Assane Ndiaye ngéwél gi ak waa Rafet. le 26 mars teeru bi dina neex. asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi nuyu ñëpp di sargal ñëpp di ziar ñëpp ñu nuy seetaan rawatina nag ci émission bu rëy bi di seetu Sénégal may bégam ñëpp ñu nekk ci plateau bi tey nag euh, beneen rib rubrique comme ni ma koy defee saa su nekk rek nee naa la weeru jigéen ñi la ba tax na chaque jour damay dem si benn jigéen jàmbaar jigéen boo xam ne lingeer la day góorgóorlu ngi ay njabootam di daan dool tey ma nekk si garage su mécanicien yi fekk fi dame de fer bu am am solo soxna si noo def. waaw sant yàlla bu baax. maa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm bu baax kay. liggéey bi. liggéey bi métti rek góorgóorlu rek. yaa ngi góorgóorlu. waaw bu baax kay. Hmm? waaw. mais añ bi gis nañ ceeb nga def bu jën def suluxu ban heure nga yeew pour dem nduggi marché ñëw war a def nekk ci njaay mi. des fois quatre heures laay yeew. dëkk laay yeew julli. ñaan ci yàlla ba 5 jot ma kitee dem Thiaroye. dem Thiaroye waaw kon Thiaroye ngay duggee ndugg bi. waaw fa lay duggee waaw maa ngi dëkk benn baraak. benn baraak ngay jugee boo jugee Thiaroye ñëwaat benn baraak togg fa ñëwaat fii nii wes. Mhm. fii ci miiru aéroport bi rek. ngay toggee waaw yanu ñëw fii. waaw métti rek. Mhm. am nga ne heure yi heure yi may yeewu. 5 mhm. heures di romb ay agresseur lu nga def ci yoon wi. soog a ñëw togg si fii. mais kenn 5 yi des fois ñu am des fois du am. des fois mu neex des fois mu ndax man danoo yàgg rek mm-hmm. maa ngi ñoom ñaar fukki at ak ñeent ci ren. ñaar fukki at ak ci ren yaa ngi jaay. waaw maa ngi jaay ànd ak ñoom fu nekk rek ma fekk leen fa. dañuy dem nañu Grand Yoff dem naa Grand Yoff mm. nekk naa Cité Port dem naa Kambuga ñëwaat fii fekk si waat leen fii. Mm-hmm. waaw kon nag maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi sant yàlla bu baax waaw man sant yàlla bu baax yaa ngi ciy gis sa bopp ndax njaay bi mi ngi lay fajal say soxla yaa ngi ciy gis sa bopp bu baax. waaw maa ngi sant faj sama soxla wax yàlla bu baax a baax rek mm-hmm. waaw maa ngi sant yàlla bu baax waaw ndax jaay mi rek laa am. am moom lu sama daal sama doole. balaa ñaata ngay jaay. maa ngi plat téeméer la ñuy jaay. téeméer ngay jaay. Ah, ceeb téeméer su suluxu téeméer tey def naa deux plats yooyu nga def. waaw tey lépp loo togg daal téeméer lay jar fii waaw. Mhm. ndax fii li dañu def téeméer. ouvrier yi dañoo bariwul doole. dëgg la bu teyee ñu liggéey bu subaa ñu toog. Mhm. su oto baanul duñ liggéey. Mhm. te am lu la fay. kon nag ñu da leen jàppale. xam nga kenn jaayatul téeméer. ñu doog ñooy jaay lépp na leen di jàppale xam na ne njaay mi amatul dara. say say say frère lanu say doom lanu. ñii samay rakk lanu. ñii samay nijaay lanu ñii samay mag lanu ñii samay kii lanu. Mm-hmm. damay ni jàppale rek te yàlla tax. Mm-hmm. waaw lu ma ci am rek mu barkeel. waaw looloo ëpp solo lépp luñ ci am mu daal di barkeel ban message ngay lancé sa moroom jigéen ñi nga xam ne tey ñi ngi toog di xaar te ñoom ñu war a jug ñoom itamit góor-góor lan nga leen di wax. xanaa ñu daan doon tak seen séeri rek di liggéey rek dóor waar rek liggéey rek laa leen di sant ak di góorgóorlu gën yokk muñ rek waaw ñu yokk ci am yàlla tamit xam ne rek lu am rek yàlla moo nu ko def kon nag dañ leen di jàpp di leen ñaanal rek yàlla may leen gudd fan ak wér gu yaram may ñu rek kàttan gu mën a saa suñu xëyee rek di liggéey si door si waar waaw loolu la ñuy ñaanal waaw. Eh, gannaaw bu ñu paree nag ci reportage damay wax joyeux anniversaire to me. waaw happy birthday to me longue vie Collé ay dundal la dund doyul Collé laay enjoy bi sama bis la may bëggam ñëpp gis naa cadeau yi gis naa gâteau yi gis naa ñaan gi tey nelawuma démb ba tey sama cerne yaa ngi nekk rek ñi lay woo ñi lay message di bëggam ñëpp waa bi daal yéen ñaanal leen ma bu baax a baax a baax a baax bëgg naa kontaan naa maa ngi bëggam ñëpp. moom moo ñaanal boppam moo souhaité boppam joyeux anniversaire. waxal boppam yu baax nee na ñun lépp luñ ko xam-xam-xam moo ñu gën a xam boppam nee moom ku baax la nee na moom ku dal la moom na ku yiiw la nee na ku bëgg Seydina Limaamu la ab julit euh, maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm mm-hmm. defal naa ko vidéo mu kontaan ci lool nee naa nag mbégte boo ci am rek bu laa ci am moo tax mu defal la loolu ma koy ñaanal yàlla defal ko jàmm yaru ku dal ku teey yàlla na ko yàlla euh, defal jàmm baax a baax amiin yaa rabbi moom sama la sama la xale la bu am jom mhm. xale bu am jàmbaar la ba pare li muy def dafa am solo day dugg ci ruq yi ak yi di wane yi nga xam ni mhm. dañoo commencé ci dara ah, nekk ay jàmbaar xoolal ñi nga xam ni ah, ci ruq ba ñii kenn daaw leen fekk fañ nekk di leen wane ci àdduna te ñu ñoo war di feeñ ndax ah, ci TFM la ñu nekk ku feeñ rek yàlla mën naa dimbali nga am loo wala dimbali am ku la bëgg ku la mhm. bëgg a li ngeen nekk nii bu leen ci dara jële am na solo euh, ko la laay na ko alors ñu koy ñaanal gudd fan ak wér donc li ñoom maam wax rek moom la ñëpp di wax ci moom bu ñu ko xamee ba tey yar nañ ko xamee teggin ànd ak pas-pas nag lool nag ci li nga xamante ne moom moo di liggéey bi yore nag jikko yaay faal wàcc donc moom moo xam nag li mu bëgg ci bésam bi suñu borom mi mayee mu defal ko ko ci barke yonent bi et on lui souhaite tout le bonheur du monde parce que elle le mérite mm-hmm. macha allah wax ni rek euh, nga dund 111 ans sans ordonnance suñu rakk jooju te xam ne rek yàlla wéral baatam fi mu ko jàpp daal foofu la bu mu teggi tànkam wala xale bu baax la mm-hmm. xale bu baax bu yaru la wax dëgg yàlla xale bu disponible ku gaaw a miin mm-hmm. keroog lañ doog a gisante waaye daf maa koot la nga ma ne maa la bëgg <laughs> kon nag yàlla na nga ko féete at yu bari. barke salaatul fatiha. am na solo ah. am na solo yaakaar naa ne fa ñu nekkoon. waaw fu bala ñoo dem fenn damay damay ñëw tuuti wax ñi nga xamante ne da ci wàllu jox leen eh, dépasse. maam daal indi nga fi wax joo xam man. waaw déedéet dépasse bi fàttoon naa ko de. déedéet déedéet abaa bala ñoo dem kaay dama bëgg ñu taxaw tuuti wax ci li nga xam ne moo ne ci table ji ba pare. Mm-hmm. Ah, ah, lii Baara Mousso mii. bala avant muy ñëw ci réew mi. Mm-hmm. suñu yaay yi dafa am ci lu nekkoon. Mm-hmm. faw ñu bàyyi ci xel. ndax démb li amoon. ak li am léegi am na différence. am na ba oh. pare am na ah, kër yi. na mu meloon démb moo gënoon na métti mm-hmm. léegi la gën a neex te kër yi fi ñu toll nii ah, ñun ñi toogatuñ jigéen ñi toogatuñ ci ah, ci biir néegi sëy mm-hmm. loolu nag bëgg naa ñu taxaw def ci seetlu tuuti mm-hmm. parce que Aba démb pôle la moo amoon ngay jël kopp def ci biir jël biteel de chargé ko ci biir chargé sa kopp demoon taxani dem rooti maa la njëkk a dégg ngay daan dégg damay rooti ribine ba aha kay waaw booba koppam kofe maa moo amoon kofe maa la ko mag ñi daan jëlee boo miinee boo miinee li wax euh, képp koo xam ne mos ngaa dem du uti këpp. fi nga nekk nii baax na de. waaw képp koo xam ne teneen ni ma la ci bëgg laaj avant ngay daaneel. ah kay waaw dinaa ñëw. looloo amoon suñu yaay yi dañoo sonnoon seen kër yi. tey nag euh, rooti woo. taxani woo. dëbboo. dafoo dara loo xamante ne nii tey ji ab coono la boo xamante ne muy si biir kër. te sa xale jigéen ñi toogatuñ seen kër yi néegi sëy parce que mag ñi sëy nañ sëy yi ba dem. booba dara amoon xaftaan caaya jamput nga daan euh, xooj fóot boo paree passé ci jour bi sama yaay maa ngi koy nuyu aji koddu mm-hmm. sama yaay ja toog léeg-léeg mu ne ma di wax moom jaar-jaaram mm-hmm. mu doon loo xamante ne damay xam ne képp koo xamante ne nii yaay nga rek delloo la njukkal war na am na foo jaar fu metti léegi nag kenn dëbbatul gis nga lii kenn defatul dara dëgg la yëpp yomb na waaw léegi lan moo leen tere toog ci kër yi loolu ma jaxal mm, maam naan fi nga nekk dafa am solo xam nga man damay waxee aal damay jékki-jékki rek wax te eh, par yenn saa yi man par yenn saa yi eh, du ma xalaat dañ may nax rek léegi yaa ngi ci démb. waaw di joxe suñu yaay yi exemple. doom yu ñu am ay doom yu baax lañ. nañu sëyee la. Mhm. nañ daan toggee. Mhm. nañ daan yàkkee. Mhm. ak lañ leen daan jox dépense ma am daan bu njëkk ñaata lañ daan joxe dépense. waa démb aba aba démb dépense. ah juróom fukk juróom fukk. téeméer wala téeméer wala 1000 francs ma yokkal leen ba junni mille mooy jox leen ko waaw ñu jox leen ko ne junni ngeen xeeb nga xam nga lan la gis nga xoola xam boppam lay gàttal muy ma jox leen ku ne cinq mille cinquante mille ne dama àll woon jamono changé sama yaram moo tàngoo jamono yu jox naa leen ku ne cinq mille ngeen eh, bu ngeen toogee ba indi ma jël enveloppe bu am cent mille francs teg ah. may ñam maam daan di ñam waaw may ñam ñu ñam ba ni ci ñam gi <laughs> ñu ne kii ak invité bi bi ñuy am Uh-huh. keroog ci jour bi. waaw mu ñëw ñam ak ki moom baara musume. waaw mu ñëw ñam. waaw ñu ñam ba ni kii moo dàqale. waaw maanaam kii gën a neexle kan moo gën a génne tam-tam. waaw ñam ba ni kii ya gën a neexle. waaw ci diggante moomi. waaw ak dërëm. waaw ak Mado Jaw. waaw ah, ku gën a neexle. ñam ba ni ki ya gën a neexle. ah ku bu ñëwee ki ya gën a neexle kooku moom enveloppe bi. <laughs> abaa abaa ah! bu ñu ñamee ba ni kii ya gën a neexle. Ah, maam kii ya gën a safle. ñu jël cent mille bi enveloppe bi jox ko. ah ku ko dese yaay jël enveloppe bu fekkee nag. waaw indi nga bu fekkee indi nga waaw ñam ci. waaw ñam yaa ñam ci li leen bool bi. ubbi bool bi ñam ci ma bu dee nag sinam nga. waaw ci bi ngay xool li soble. waaw. ah bi ngay ah bi ngay dëpp bi ngay ñuluk sinap. sinap nga ci bi ngay sóor. bi nga yàq nga sinap. waaw mais yow xool li ñam bi tamit mu lay dicté. war ñu sinap waaw ñu gis sinap yi. man maa benn togg di ko sinap. yaa déedéet sant bu ay waay déet damay wax rek pour muy clair nit da ngay moytu bët. waaye li ngay togg ma war a jëm ci biir. waaw déet ñun nga koy ñun nga koy jox yow nekkul dara ko man daal def ma rek di def xaw ma ci yéen ñaar rek kenn ma jël pio kenn ma jël des man ma jaaxal ci yéen ñaar. waaw kii bokk na ma jaaxal. ñenn a ngi nekk bokk yi yii ñam yii ñam lay bokk ki togg de commencé naa ko ma gis maay jël maay jël fee <laughs> ah. ah. ndax man damaa fekk jamonoy taxan ah, siir ak kopp daan ko wuti fii rompaye Fass atelier Pambay di jël kuur jël jël kii wi ma jël bërigo dagg ko wutal ko pax mm-hmm. def gën kuur gi ci digg bi jël kopp mi teg chargé bës ko ba mu ni muut nga rocci nga rocci kuur gi taal mu tàkk nga teg sa cin mu togg wuy ma bu ngeen ma dégloo la ne may démb ca faas may démb ca faas ndeysaan loolu la sama yaay yi daan togge te togguñu matt siir ah de doo xaar ba pare ma mosoo togg matt toggul matt yow traiteur nga fekkee yow jamonoy traiteur nga fekkee matoo. ah a mat. toogul toogul de ah toogul. ah yow daa toog a mat. waaw yéen ngeen toog man man moom dinaa toggee toog naa ma laa bëgg a wax. maa war a jël pay. par kenn wax toog bu la ko kenn dagg. bàyyi ko ayca na ca cordon parce que maa togg ñu mën a togg nag teg ma ci temps. Mm-hmm. sën seen mi ngay gis nii ci télé bi muy taa sën.

déglu dama bëgg rek. ma doon la ni démb la moom mooy wax pour war na ne temps la nekk moom mooy wax sama ma ñu def sem de bu ñuy def sem foo fekk nag ku ak day bañ ku teen ah oui moom mi ne moom la jëppee pour yow bu déglu de waxal waxal kii damay xuloo ma di tourné mu ngi lii la am ci togg mi lii la ci am de. lii la lii la ci am lii la ci am de bu leen ko déglu. waxal sa waxal waxal. barke rasulullah. ayca xoolal bu ah. wax ne ne da boo din kuur gi. Ah. day def benn pax. Hmm. léegi pax boobu ci kii bi bërigo bi ñu këppati. ci ngay taal boo taalee teg sa cin. koo max la waxee lan. mooy kii nit la. dërëb da ngay àggale. àggale ah waay waay àggaleel ma la ma def la ne. tontu rek laa bëgg. xam nga lu ma fi gis Ablaye Der ak Bouba Ndour bàyyi ma ma yeggali wala doo ma bàyyi ma yeggali. la bàyyi nga yeggal mais yaa ma daaneel. ma daaneel parce que xam nga lu tax. dëkk bi dafa évolué dëkk bi yow eh, kay kii yow tak ruube. bu ko déglu waaye léegi ma bu ma daggaat dama mm. ndax moom fi mu ne nii ku aj day bañ ku teen. ma doo tafal nànk ma togg ceeb bi bu ma defee sama siir ba génne ba taal teg sama cin bébé kër ga la ngeen toggee seen kër. eh gaz léegi la. Ah, mais bu njëkk kopp eh, eh, eh, ak siir moo amoon ak mati. xale seen yoon nekku ci ay togg. waaw ji ngeen xaar ak. si classe bi ni ngeen demee ko togg mi seen yoon nekku ci. xanaa ñi mënul dara la seen ku ngeen àndal ah, kaay leen koo leen àndal kii indi traiteur kii indi traiteur moom ngeen àndal ok eggal yow bàyyi naa la ak moom sama sama ci kii kii sax moom li waroon li ngay wax jeex na li nga wax jeex na waaye nu may waxee ak madoo mi xam ne ba dëkk njaareem ci ëttub Serigne Bassirou ba <laughs> ëttub Serigne Saliou ba fekk jamonoy toggee ndéef ci ñu mag ngeen toggee fekk jamonoy toggee ndéef mhm. ndéef paase ñu rek mat mhm. di sóor fukki kilo ak juróom ñaar mhm. tubaar kàlla tubaar kàlla sama yaay di ñaareel dama ne yow boo nee yow loolu ngay wax bili la tudd bili. bili waaw bili bi la bili la tudd. xanaa du bili. waaw yow man maa am maa baax di teg bi kii ko moom de. dama ne bili la tudd loolu muy wax. la jox ñaari jox la naa la jox ñaari junni dépense. cinquante mille nga wax. ñaari junni jox la la ko dépense. xoolal woon nag. waaw ndax booy am na nooy xam ne mat ma rek cin la day jàpp. waaw loolu dëgg la da nga koy génne da nga koy génne. da ma du baal ji jël fii laal parce que dama leen di wan ni. dama laal ka man tamit damay toogee matt. waxuma la yow boo waree nag toolu ca sóor ba da ngay rocci matt bi ba pare da ngay déglu bàyyi idée boo xam ni fii du togg kaay bi de dama leen doon laaj rek ba xam mën ngeen a togg indi fi idée wax waaye boobu gaz yaa te moom Astou Mbaye la doon xale jéeri ngoone maa la ba sàmba jéeri ma ko jàngal togg Mariétou Agne man moo ñu yar mu ne nañ ceeb mu ne nañ toggi tubaab ah. tubaab fakala law la cat sama catu laa mi nag sama xaala xiir Ngoné Malobe Samb chéri Thomas boobu. ceebu jën waaw yow balaa ngeen ci rek ngeen doxoon ñu ndawal. ceebu jën ceebu keccax wala ceebu géej bu saf saf bu amul keccax tubaab bu ko toog yow boo reppee sax ma toog ñëpp mënul dara mooy ñëw abaa nga jox ko dépense mu togg aw baas xanaa day dajale suñu junni junni waaw nee na moom mën na nee na ko abaa jox dara mu won leen nan nañuy toggee lii la bind abaa abaa <laughs> xam nga jigéen mm. ndamam ci kër mm-hmm. mooy togg moo ñaar ñi ko yow da ngay sànni ay trac ak oh, di ma oh, oh, waaw déedéet déedéet déedéet déedéet waaw Mado yow xam nga sama xarit nga ah. mais dañuy wax rek loo xamee kenn ku ci nekk ñi nga xamee ñu ngi nii seetaan di ngeen am luñ si jël parce que démb mag ñi nin yore woon kër yi mm-hmm. booba dépasse yi néew na njoganal amoon na ci kër yi te léegi dépasse yi bëri na njoganal amul loolu nag li ko waral mooy que ne euh, euh, mag ñi démb dañ doon sëy te yàlla rek tax léegi tey bu gaz bi jeexee bu gaz bi jeexee hmm. dañ lay xaar ba nga ñëw boo ko chargé wul añ bi du dem mag ñi démb dañ doon taxani dañ daan dem du wuti ay am kopp yaa ngi sa sa yére démb nag maanaam arrêté am nga Mado yow sama xarit nga ah déedéet noonu tey da ngay tendance ak di ma xool waa déedéet déedéet waa mais tey du mi ngi nii nag tey sol sol casquette waa mais non non sol casquette waaw waaw xam nga boo ajee sa affaire fii di bañ ku ko xool nga ni nii mu sotti euh, bi omelette wàccee ci réew mi moom ah. mii moo ko dal ah. Eh, ah. yàlla ma na may naka ci omelette ay bu la omelette lee am nañu am nañu ay événement yoo xam ne ñoom tamit ñu ngi toog di ñu xaar le 26 ñaari événement yoo xam ne ci mennum bis la ñuy amee waaye bokkuñu nga xam ne fa la ñuy amee bii ma ngay am euh, foofu ca Kaolack ànd ceeg Pape Diouf te nag yaakaar naa ne bu ñu nee ci Kaolack dañuy taxaw nag def fa taxaw seetlu ñu baax a ngi ci waa ñu ngi koy pare ñu ngi koy pare ñu ngi ci ñëw mm-hmm. le 26 bi nga wax moo tax sama xel dem ci parce que man dama nekk arco Dakar di mhm. comédienne tamit mhm. ñoom it ñu ngi koy préparé bu rëy rëy ak mhm. arco Dakar arco Pikine yëpp maa ngi leen di nuyu di leen wax ne ñu koy waajal weer bi daal suñu weer la. ay ci le 26 nañ dem Kaolack. Diouf de rango. bu ñu paree ar ko dañu dem Kaolack rango rango ta rango dërëm. ca Papa Diouf. rango jom rango fula rango fayda. Diouf de rango. Ah, ah. yow yaay bokkul Sénégal boo ñëmbaane wu ne. ay ci ah, waaw. xale bi nga xam jëkkëram. waaw jàppale jëkkëram ko. Mm-hmm. muy bébé baas. Mm-hmm. Mm-hmm. fii laa toog di wax musuma gis ko gis. lu baax ci Pape Diouf Diouf ma pare mu woo ma dama demal ci ëbëza mu robb la robb yi rafet bu ma sol ah, moom ko jox moom bébé ah, baax waaw yow ah, waaw mon numéro yow léegi léegi bu ñu demee dem kaw maa njëkkam di ma jëkkër ba parce que bu ngeen waxee bu ngeen waxee ci kii way ba noppi voilà ñun ñëpp wax nañ ci Papa Diouf voilà ndax ki lay dalal baax na nga gërëm doom yaay Matar Diop suba tee doom yaay Marcel Diagne doom yaay Aline Badara Gadiaga maire de Dakar may leen ñu ñëw nan ñëw. ñun dugg kaw la ñu nuyu ca dëkk ba ñu ñuy dalal. tubaar fakal la sunu baay ju baax ji baay siis. waaye balaa may njëkkee ba moom damay dem ba Medina Baye ndax sunu yaay jëma nga fa. dëgg mu dikki naan nañu Ajaratu Fatou Samb. dëgg ki naan nañu ñuy dalal mel ni ku bokk ci orchestre. <laughs> ah la dëkk boo fa duggee da nga wax salaamaaleykum fa laa bokk. ndax bébé ba sunu jabar la. Mhm. te buy dem daf ñuy yóbbaale. Mhm. waaye tey bu fekkee nañu duggoon ca kër ga kenn dalaluñu. Mhm. fi mu ne nii ki ñuy njëkk dalal sax du kenn ku dul Malick Mbaye moom mooy directeur du douane enquête moom mi ngi fii te bu ñuy dem Kaolack def ñuy bung ànd ak moom monsieur le bu ñu jógee ci moom dem ci monsieur le maire Serigne Boub mu baax li ah, ah baax na ak soxnaan su baax ji papa Doro mu baax mi chéri ji mm-hmm, mm-hmm. alaaji Baye Ciss anamu mm-hmm. ma nga fa ana xale bu am jom bi am ah, boo du ñaarax ma mi gën Ousmane Noël ñoom ñëpp ngi fa macha allah du baaxam fa. ah ñoom avancement wu Kaolack rek a leen sox. nañ dem Kaolack dama ne Ousmane Nawal Dieng ma nga Kaolack. Mm. xale bu euh, am jom nangoo liggéey bi. Moumit da ngay déglu. Mm-hmm. ñun ñëpp am nañ fa Kaolack ay mbokk. dama ne dugg nañ fa génnaat bu fa dëkk wala nga fay jéem a fa. dama fa dëkk dama fa taxaw. <laughs> dama fa taxaw xam nga Kaolack dama koo bëgg. Mm-hmm. tubaarkàlla tubaarkàlla Serigne Boub mm-hmm. màggeen boobu la bokkal ndey ak baay borom yaay ji teel a réer ñu koy jooyta noppeegunu maire de maire waa Kaolack bëgg ko woolu ko ne ko jëyil Kaolack yaa ngi yor yow lanu doyloo yaanu saf tubarkàlla xoyaan mbaay sama doom sëriñ bu teg ko place xam ko mooy kat usa nawet je xale bi nga xam ne keroog bi ñu ko invité ngoonal sama néeg laa toog ne xale bi moo am jom abba bàyyi ma màggale ah, kii jox nañ ko beneen dépense de <laughs> bruit ma ko jox man kii mos na dépense gu fort goo xam ne mën naa togg ñetti ndab ngeen togg benn nañ dem xooli Papa Diouf biir Kaolack te ñëwaat léegi soo nga dem le 26 beneen 26 am na beneen yow mi togg nañ dem Papa Diouf ci kaw la te ñëwaat léegi ci plateau monsieur Youssouf Ahmed Benzeloum président mbokki Sénégal ak li ko wër lu label Jeri Ngoné moo leen di présenter Pape Diouf au cœur de ville de Kaolack nangaan le 26 mars ça va bu amul fenn la leen Pape Diouf di defal yéen waa Kaolack nangaan lu label Jeri Ngoné Production dama damay sargal jigéenu Sénégal ci madame Marème Faye Sall première dame

Gueye Cœur de Ville Mathias Lewna Anna Thiam Mbaru Or Absa Diagne réservation table 77 104 22 61 77 481 0048 jay le 26 ak lu label Jëringone production andi ayca kenn du jëringone euh, production tabarkalla sama waa ji maa ngi lay kontaane bu baax ah moom euh, jëringone kenn du moom moo bokk ak Assou Mbaye Assou Mbaye euh, tarkalla ah xale yi ñoo am jom ay jàmbaar dëgg moo bokk a Assou Mbaye waaw kay loolu am na solo léegi nag bu ñu paree le 26 foofu ci Kaolack xam naa moom duñ fa yàgg xaw ma ndax fii dañuy njëkk a jógee dem Kaolack xaw ma dañuy jógee Kaolack daal di ñëwaat fii parce que dañuy dem ca teeru bi ah, ànd ceeg waa Raf Prod Clara nga xam ne mooy jigéen ju man góor jàmbaaru fàkk tëdd gi nga xam ne moo nekk ci ginnaaw jëkkëram jàppale ko taxawu ko fa mu ko war a taxaw laaju ko dërëm mm, mm. liggéey ñàkk di fajal boppam la xam mm. ànd ak xare raaf produit organiser ki nga xam ni moom mooy assan Ndiaye waaye Kéba sekk war a jouer première partie bi ay surprise yu bari war faa xew soirée bu doy waar bu mel ni Massam da nga daan gis ku génn dem Kéba mm-hmm. wala nga génn dem Assane Ndiaye dëgg la waaye génn demandoo Kéba ak Assane Ndiaye guleet Kalaaraa ko indi. dëgg la waaw la mais Aba. le 26 waaw le 26. samedi ca teeru bi. waaw waaw samedi am nañ seen table. waaw am nañ table table jooju xam naa dina xumb. waaw table boobu nga ñëw waaw ñuy nuyu Assane Ndiaye ñu invité woon nañ ko mm-hmm. euh, fii. mu ñëw fii mu doon nit ku baax. Euh, nit koo xamante ne nit boo ko invité jàkkaarloog moom di nga xam ne nit kese la. ku baax la waaw ñu koy ñaan le 26. Mm-hmm. Euh, bis boobu lépp lu xamante ne nii yaakaar na ko ci rek yàlla bu yàlla tas yaakaaram. aba da ngaa dugg Kaolack man ma nekk nit koo xamee tey jii ci Sénégal. ñi may bëggee dafa bari ma rawoon ci ñoo xamante ne danoo nekk Kaolack euh, di ma bëggee chaque jour sama téléphone bi ñi may woo dëkk Kaolack dafa bari may nuyu Ousmane newel mu nga xamee sama xarit la moom nit ku baax la nit ku may euh, nit ku yàlla baaxal la ñuy nuyu ñi nga xamee waa ñooy waa Touba ñëpp ñu ngi leen di nuyu parce que tamit Mamran ñi ko bëgg dafa bari waaye képp koo xamante ne nii cofeel nga am ci man rek am naa cofeel bu raw euh, bi nga am ci man may nuyu ñëpp ay ci am na am am na solo Awa Diallo Awa Ndiaye mooy madame Diallo bàyyi leen seen parlo bi ci plateau bi euh, ku leen seetaan xam ni da ngeen koy xeex moom Mado Diaw ah, ay wax yu sew la ñun duñ ci tontu euh, yaakaar naa ni ay wax yu sew la euh, boo fi indee say produit nga jël ki nga xam ni moom nga bëgg mu togg say produit mën nga koo jox waaye ñu dañoo équilibré waaw ah, ñu dañoo équilibré ñun ñëpp la ñemale le 26 il n'est pas objectif teeru bi le 26 ak Clara. incha allah na Clara comme ni nga ko waxee mooy jigéen bi nga xamante ne mooy jigéen ju man góor. comme ni nga ko waxee Aba. Ah. jege jëkkëram nag waaye jàppale ko macha allah te saa su ne comme ñu koy wax saa su tëggee rek ñu xamante ne am ñaay joxal jóob amu ah, <laughs> ñuy woo ñëpp te xam naa ne soirée boo xamante ne Sénégambien yi te Gambien yëpp ñu ngi koy pare ndax ko gis Awa Gaye ak waa Gambie ñu ngi ñëw ñoom ñëw le pays invités donc mm-hmm. nag mu nar a nekk spectacle bu nara a mag incha allah kon bu leen ko kenn nettali teeru bi lay doon incha allah sa sera ce la ñu bëgg nag gis waa TFM comme ni ko Aba waxee suñu table mi ngi fa ñun ñëpp dinañ fa teew ànd ceeg moom bunge ko parce jigéen la te c'est le la femme dañ ko war a jàppale ndax euh, waa Gambie suñu leen woowee tuddee leen ku ci mel ni <laughs> Jojo dina ñëw ak ki nga xamante ne ñooy Aysatu ak xale yu Gambie yooyu nga xam ne ñoom yaakoor du foofu ca gàmbi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ndax boo tuddee doomu gàmbi rek tudd nga Gambien sépp te ñu nekk ñu am teraanga ñu am jom ñu mën bis comme euh, bu soobee yàlla samedi le 26 euh, Gambie dana yëngu ndax taa Marème dana jóge ba États-Unis yaay Jamila ñëw ci bis ba dina bëri géer dina bëri géer ndax euh, tubarkàlla keroog ba ma demee Gambie defe naan bi may dem mbuus laa indi waaye ba ma ñëw saak yu mm-hmm. yu nganda yooyu lan ma yabal tubarkàlla may solu boobu ba léegi yaa Marème ak ñoom joojoo ak xale yi nga xam ne ñoo dëkk Gambia ñoom ñëpp dina ñëw table rek la ñuy def euh, wut ñun ñett ñi ñu wéttali muy ambiance bu ñu gisee géer boo demee maag moomee dem kay yéen togg yéen dem waaw ma doon dem dinañ bokk ak yéen ma dem moom du dem mënu togg ceeb du dem séeri Doro Gaye ah séeri Doro mm-hmm. xale bu am jom boobu mm-hmm. tubaarkàlla li nga def dafa dafa doy waar mm-hmm. boo nee Gambie laa tuddee bi la kon ñun nga xam ne ñoo ne Sénégal kenn duñu ko nettali gambi googee nag yaama càmm day jógee tubaarkàlla jaamaani ñëw fekk ci bis ba sama sama mag jooju nga xam ne bu wax ji bëree du moom bu jëf ji bëree moom la mm. loxo ci poos rek tubaarkàlla macha allah bindal noot mm. nga yegg tubaarkàlla boo duggee ca wesen ba xam ne kuy door a mën kuy saag waaye ku boole ñaar yëpp man mën ñëpp karaala la benn si mooy bu def rob teg musóor nga fii lii laay def

première partie ba ñu ne Kéba Seck ay yow lii nar na neex di première partie Kéba Seck ah ban pays mooy pays invité ñu ne la Gambie. Gambian people bugguma kenn des gannaaw I want everyone to come on board and the Gewel gi band of ak Kéba Seck waaye nag ñi nga xamante ne mooy waa Raf Prod ñoo ñu indil this night is going to be a spectacular night a night full of surprises and a beautiful night boo xamante ne is the Senegambian night Assane Ndiaye and the xam naa ne Gambian si buñ fëlësee sañse macha allah red carpet is going to be there for you guys maa ngi everybody képp koo xamante ne yaa ngi Gambia surtout sama waa biir Kaama xam nga Assane daf ñoo beral loxo bëgg naa ñëpp ñu daal di ñëw. attention ce 26 mars du yomb réservé leen ci 78 592 42 54 ci 78 592 42 54. you can contact us on plus 221 78 592 42 54. non du ma may dara Assane Ndiaye ngéwél gi ak waa Rafet. le mars teeru bi dina neex. aja merci à Gaël Faye madame Bousso ah jaajëf euh, nuyul ma sama xarit ba jaari ay dara mooy madame Camara moom it yàlla na jàmmam yàgg mayel ma ko sama aja Ndey Mariam Sow ak sama soxna mooy madam coy Xaar fay Euh, kenn jibi cooy maa ngi lay kontaane di nuyu famille bi yëpp jibi cooy yow loo organisé wul baaxul loo tegul sa loxo baaxul mm. raaf prod lu mu def te nekkoo ci baaxul boo nekkul teeru bi teeru bi baaxul yëfi Youssou Ndour boo ci nekkul baaxul sama yëf man Abba boo ci nekkul baaxul jibi cooy yàlla na jàmmam yàgg dafa baax ñu ñu xaar fay boo soxla si xaar rek la bëgg dëgg la yenn saa France toog fa yàgg fa lool. <laughs> xaar naka mel noonu jot boîte vocale yow. dafa jongo ma. <laughs> waaw mais waaw nañ ci tàngal gi. abaa dañuy ñëw fii nga xam ne mooy tàngal jinjeer. Mm. xam nga bu fekkoon daa yem ci tàngal rek. Mm. àggul si jinjeer mën naa mën a am euh, compliqué. waaye ba ban ci defee jinjeer. lan war a taxaw nag. Mm. kii kay publicité mooy Balla Gaye ñoom la yàlla def ñu euh, ñu dóor ñu démb. ñu koy euh, ñu koy wax nag loolu. du dara bul ñëwaat ci loolu. déedéet déedéet dama jàkkaarloo moom mooy xool rek xam naa ne moo nga fa toog ca salam waaw waaw waaw bu <laughs> waaw mais mi ngi noonu aba ah moom jinjeer mi mm-hmm. dama ah li ma njëkk a ah, di laaj mooy ku njëkk a bay jinjeer kan la mm. ndax boo ko métier fi muy njëkk a àgg ci yow lan la ak li mu mën ni mu bëree moom jinjeer mun na jaaxal na ma man macc ba ci yàgg sa noppi men déggatoo dara déggatoo dara mm. tànk ah, te te tànk sàlliwul doo mën a wax ak nit mm. waaw loolu ma jaaxal gis tàngal Balla gay bi dafa neex ah. dafa jar jinjeer ji baara bu so gis nga ñun ñi nga xam ne dañuy taasoo ko way ak di wax dafa baax ci suñu gorge bi gis nga man su ma amee ñaari programme am ko vendredi am samedi am dimanche ba ci ci guddi ma jógee Dakar na door pa mm-hmm. tàngal jinjeer laay boole ñaari peget xorompolle ak pasti hmm. ak tuuti meew ak ndox mu tàng naan ko gi nga boo ko naanee da ngay fanaanee géex ba bët set jot boo xëyee hmm. yaay raw fitu gu mbër sa ah, ah, waaw waaw pare ba pare lenn li ci gën a neex mooy dafay dafay changer sa alem waaw ah. daf lay jox xetu gémmiñ gu neex waaw ba pare dopage la xam nga jamono dafa dañuy seetlu putu nit ñi day wow koŋ man démb rek arrivé na ma bi ma ah, poussière bi la programme ba ma ñëw sama put gi wow koŋ mais bi ma tëddee ba war a tëdd ni guddi gi mhm. dama xolli benn rek seex bi ma xëyee ma sentir na ko comme fi mu fi moo neex parce que waxtu bi soj bi bari mhm. kii yi bari na képp koo xamante ne nag jege na la ak boutique boo mën a dem laajteel tàngal bi mooy tàngal bége mhm. nga bége sa lépp soj bi bu la neexee macc ko bu la neexee def ci meew voilà bu la neexee def ci meew tàng bu la neexee def ko ci suuf ah, ah, bu mu ci mun ci doon daal boo ko jëfandikoo sa aajo tubaarkàlla séeri buri bàcc lee ko yor mm-hmm. <laughs> Balla Gaye la lion de Guédiawaye moo ko téye tubaarkàlla macha allah séeri buri bàcc li jéeg bi tasut fay tukkiwul yàgg kin jëliwu ko ku bëgg Balla Gaye buree tax kan <laughs> ndaanaan la ah ma yemale ko fi ma bañ a eh, fanaan waaw doom day <laughs> waa damay nuyu Kolle Faye Kolle mm-hmm. ah, Faye damoo daje Sandaga ban Kolle Kolle Faye mel na waa seen colle lay doon ndax waaw colle mu yëmbal ñoo ñu ñu présenté ma ko waaw baax la waaw damay ñëwaat waaw dafay ñëw woo ma une heure ne ma looy def nii balaa cinq heures du matin dañoo war a dem biir yëmbal mhm. ma seeti papa diw ak papa diw ak papa diw ak papa diw ndax heure boobu la ñuy dugg ci jumaa ji di julli fajar ku baax la ndax fooy fekkee fu ñuy ah, waxee bëggul ko ko wax bëggul mm-hmm. ko def mais comme ñoo bokk fa ñu juddoo mu yar ñu ñu màgg ci ay loxoom xam ci fulla ak fayda ji mu nekk di def lu kenn dul yëg nag bu baax wax rek laay wax mm-hmm. xam xaw ma ko foire ba laa ko gis mm-hmm. xaw ma ne woon sax mooy kole dafa takk fii benn affaire bu rafet buñ bind Chanel xaw ma ne sax mooy Collé parce que man du may génn bay xam léegi bi ma xool ko daan ne ko yow sa kii bi dafa naay mu daal di koy tekki na ma am takkal ma ba pare ne ma man la Collé Faye foofu la baax ma a yam mm-hmm. kuy teral ba teral koo xamul moo tax ma ne la dinaa la dog parce que duñ koy wax waaw ñu wax ci moom ma noppi day lu leen waaw kon baax na mais sama papa ma siif waaw waaw Saala Bigué xam nga sama papa la. waaw Saala Bigué bu siifee nuyoo tabarakàlla te bëgg naa ko jël ci plateau bi nag mu ñëw toog ñu ah, la mais émission bi jeex dañuy tëj. waaw dama ne dinaa ko invité ci plateau mu ñëw ñu waxtaan. waaw may ma la ci waaw may ma la ci daan. waaw waaw euh, boo gisee ma wax loolu. te Collé boo gisee ma wax Collé fay ndax dafa def acte boo xamee xam nga nit euh, yàlla mooy boole ay nit. ci mhm. loo xamee kenn kenn ku si nekk doo ko daw fekki. mais sunu borom moo koy def. waaw ñu présenté ma ko ci euh, Sandaga démb mu waxtaan man ne ma yëmbal dëkk man yëmbal juddoo mu ne ma wax ma maa ngi dëkk côté eseg naa ñu waxtaan man ak mu yëkkati teraanga jox ma loolu doon loo xam ne ci a baax maam raan woo ma émission bi tamit dama koy wax parce que dañu amoon rendez-vous moom bi ko Kole Faye woowee ba defante émission bi jeex na de mais amul problème léegi di remercier waat bu baax ki nga xamante moom moo kër Serigne Fallou euh, tissu chez Fatou comme ni ma ko waxee gis macha allah li ma sol nii tey moom moo ci génn donc képp ku bëgg tissu bu baax wala loo xamante daal day jëm ci wàllu sañ sa yére xew brodé pirxe wala waajal koor gi na fa dem ku bëgg teral tamit sa ay njëkke wala sa ay goro ci koor gi lépp luy baax mi ngi foofu na fa dem seeti ko joignable au 77 653 53 matel soxna jaara maa ngi leen di bu baax a baax ci matel ah, soxna jaara maa ngi lay béggee bu baax a baax a baax a jeex sa ndax Babacar Miroir Couture dama changé woon turam te tuddee ko ah, Jean Claude mais Miroir Couture moo jaar ci cawlin bi yóbbu ma ba Siin rek ma daal ñëw cim ceng robb bu ne muut boo xamante ni tubaarkàlla macha allah ànd ak kanam gi maam jaara l'infatigable sëvë bi moom kenn du ma laaj kan la ndax Pam Ndour a ngi si wet gi sama rakk bopp doomu yaay Khady Diagne boobu nga xamante ni mooy borom Pikine mhm. ah, tubaar comme boo ma laajee jeexal ñoom Biige Ndiaye sama xarit nga xam bu may ñëw dañ may support ñu ngi ci bi instant yi série Paco ak Jamila sa xarit ñoom ñëpp ñu ngi ci télé bi di ma seetaan ku ci mel ni Awa Bass ak ab Awa borom cap screen comme que dédicace moom wàññi mhm. waaye nag du tere nag am ñoo xamante ni waaw ma nuyu leen ñooñu sama nit yi bopp lañ di la femme de mon frère euh, ma femme s'appelle Ramata waaw ah, Ramata la soxna am sud Ramata Fall jibi cooy xaar Fall sa jabaru frère la dooni xaar sama jabaru frère la Ramata mooy sama jabar doo ma ko leeralal mu leer ma ko nii Ramata Fall. ñun ma dem te ñun ñu nekk ci xaar rek yàgg fa. ngay gërëm tubaarkàlla macha allah samedi passé damaa waroon a ñëw sax Dakar na door paa. waaye damaa demoon fii nii ci Almadi. doon tëggal Lamides Fatou Géwal. Hmm. tubaarkàlla sama mag ja Fatou Géwal Diouf ñoo ko bàyyi ñëw fekk ma fa. Hmm. Ah, kii ma ma fa yóbbuwoon ah, Fatou saw hmm. teg ma ci loxoy tubaarkàlla kajatu. kajatu ñu teg ma ci kaw may ma teral ma ba ma tedd te dara yënguwul mm-hmm. lami def faatu géwal yi nga xamante nii bu leen neexoon ñu ne mooy bool duñ ko jël ndax tubaarkàlla tojoguma fenn te abba tojuma fenn tefee ma tax ma toj sax jël ba nga tëgg ko ba ñëwaat fii doo tàggatoo tubaarkàlla kon yéen sant naa leen gërëm naa leen di leen wax ne faatu géwal sama xam ne yaay mbokkam Sénégal boo ñambaanee mu neex tubaarkàlla jëf duuf dee mangé dee mangé yaa sin jàll ma ci mbulam gën baax riis kenn du yow ci réew mi kon juufa ñoxo baay sàmba sant naa la gërëm naa la abba yoro Konaté Fashion moo génn fii tubaari kàlla tubaari kàlla numéro bi de 77 200 damay tiitoo parce que ni ma koy leer. gaawal Moumi heure bi ah, jeex na ah 225 71 64 tubaari kàlla tubaari kàlla. téye bool sa bopp mi jooy. Alaaji Malick. yaa bàyyi émission yi nit ñi nekk ñëw émission bi ne yaa koy réaliser ah lii nga mën a am Moumi nañ tëjee ambiance ana bool bi. papa sa bool bi lu jooy. Moumi sa bool bi lu jooy. jooy mu mi sa bool bi lu mi jooy mooy xam nga ne bool bi day nettali moo bool bi day nettali da bool bi day nettali mu mi bool bi lu mu wax jeeg bu teral ndayam lay nettali mu mi bool bi lu mu bu sagal ndayam lay nettali mu mi bool bi lu